bëgg mu mu xaw technique est-ce que finalement duñ ne Barthélemy Diaz am na lu mu bëggoon cest a dire Ousmane Sonko da ko doon éviter bëgg a def alter egoom Amadou Ba mais moom fexe na ba récupérer waat coow li mu des ci diggante moom ak Ousmane Sonko. waaw mais dualité boobu moom nit ñi sax en réalité ñu ngi ko doon wax. Hmm. dualité entre Barthélemy Diaz et et et euh, Barthélemy Diaz et Ousmane Sonko. mais au début Pastef loolu la doon éviter bëggoon a boole Barthélemy Diaz ak Abbas Fall. mais ñoom fexe nañ ba def seeni ruse politique. ba récupérer waat game bi mu nekkaat seen loxo. waa mais xam nga bu ñu demee techniquement et scientifiquement. Ouais. y a certaines yoo xamante ni. Mm-hmm. Ousmane Sonko aujourd'hui en tant que premier ministre. Ouais. ne doit pas répondre à certaines provocations. est-ce que yaa ngi parce que répondre à certaines provocations moom mooy en réalité gën a yokkit yëkkati oraawu. ñu koy provoqué si loolu. beneen bi tamit dugal ko si benn registre boo xamante ni ñu bëree bëri mën nañ taxu après ni lii du woon cëram. Hmm. xam nga aujourd'hui quoi que l'on puisse la déggee dafa fayir d'une part ci ay déclaration surtout bu événement yi amee Saint-Louis am non man je le di et je le répète. dans la plupart des déclarations ou bien même des discours de Ousmane Sonko des fois on sent des dérives. communicationnel. Hmm. des fois day am ay lajj-lajj. day dérape lajj-lajj yoo xamante ni moom sax après buy waxaat leneen ca lu mel noonu. Hmm. da ngay gis ni mu ngi koy bëgg a rectifier. oui tu as vu bi mu njëkkee jàkkaarloog GPS la la la kii jeunesse patriotique bu Sénégal GPS bi. Hmm. ci laa ko njëkk a wax cest à mooy bi mu njëkkee wax diggante vidéo bi dox ci ak ministre de la justice. amaana des fois intention bi mu koy waxee perception boobu mën na bañ a nekk ci senegal yu bëree bëri. non da doon parce que foofu bu waxee ni jokkalante nañ ci ay vidéo laaj na ma lii ak nangam ak nangam. surtout boo en quelque sorte du la may dara. mais mais xam nga tey opposition bi ñi nga xam ne nañ opposition la. Hmm. cest à ci politique économique wala sociale wala environnementale amuñu fenn fu ñu mën a remettre en cause li régime bi di doxal. moo tax à chaque fois bu gouvernement bi prêter le flan rek. Hmm. loolu la ñuy jël mooy dérive yi ma la wax. maintenant nag dérive yooyu buñ ko perfectionné woon. Hmm. ban ko gën ko defar bu boobaa di gis opposition boo xam dañuy tëj seen gémmiñ parce que duñu am lu ñu wax parce que tey thème campagne yu opposition bi Barthélémy Diaz ak ñii ñëpp xam nga la la. Hmm. lu ruus ci communication Sonko ñu jël exploité. Hmm. est-ce que yaa ngi duñ wax ci programme am de. duñ wax techniquement économiquement. waa ji li mu wax ndar. sur le plan économique mënul ne. lii ak lii ak lii moo tax mënul ne duñ wax loolu de. pikk ya pikk ya la ñuy jël pikk ya mu leen lancé moom la ñuy jël bu ko def une arme politique hmm. bu ko def une arme politique maintenant ak Sonko doit mesurer aujourd'hui envergure am politique ak dayoom parce que yàgg naa wax ni amul nawle ci politique fii Sénégal fii moment bi may waxante yow hmm. bu dee nawle rek Ousmane Sonko amagul nawle ci politique bi maintenant nag boo demee ba xool loolu moom ay booyam yi topp ci ginnaaw waxuma la ay ngañ démb tur ak ñooñu ñooñu rek mën nañoo jëflanteeg ñii ñooñu rek ñu tuuti ñooña rek mën nañu répondre ñii. maanaam am na arsenal bu mën jàkkaarloo. arsenal bi dafa bëri ba dafa doy parce que ay xam-xam rek dafa ne propre personnel. non ay nga fay gis. du ñu walaakaana de ci wàllum xam-xam. Hmm. lu leen maay mën a waxal walaakaanuñ ci xam-xam. Hmm, parce que tey xam-xam nag moo tax ñu accéder egg si fii si egg si bu gaaw bii. fokk fi ay ponkal dix ans nga ñëw jël nguur ak nguur ni mu jafee conquérir ak ñu la teg yëpp kooku boo taxawee ne amuñu xam-xam. mais affaire ñaata ñaata at la. waxi waxi bokkul. trois ans bokkul contexte yi bokkul non contexte yi bokkul sax. APR Ablaye Wade tegu leen dara. mais kii gis ngeen arsenal. yéen lu ñu leen teg seen état bi ñu jël répression ak lu ne li ñu jël teg ko ci kawam. donc da nga jàpp ne Ousmane Sonko li mu def dafa xuuf si ay dunqam. may opposition bi rawatina sàmm sa kàddu. ñu am lu ñu wax léegi nag loola pour prochainement moo tax ma ne yenn provocation yi Ousmane Sonko doit faire en sort d'éviter parce que amalu ko njëriñ xam nga Ousmane Sonko amalu ko njëriñ amul lu mu ko yokk muy tontu Barthélémy Dias. mais tam politiquement partant amul lu mu ko yokk. wallaahi laa la waatal Ousmane Sonko bu taxaw di tontu Dias. Hmm. wala di tontu Bougane wala di tontu Pape Djibril Fall wala di tontu Karim Xurum Xaat amul politiquement lu muy yokk Ousmane Sonko boo xoolee sax au contraire lu mu koy wàññi lay gën a lay la koy gën a jural. parce que après xamul tax ñu hmm. bëree bëri lan la ñu wax Sonko de mënoon na bañ a tontu ñii mënoon na leen bañ a may oraab yi mais en politique je vous dis bien en politique bu ñu tey analyse politique amul lu mu koy yokk du ora du clientèle politique amul. mais politiquement mën nañu nangu aussi nekkat sàmm sa kàddu teg nañu ay stratégie teg nañu ay mbir yoo xamante ne ànd naa xel ba détourné débat bi léegi mu nekk ci seen diggante ak waa Pastef le parti au pouvoir. waaw moom laa lay wax nii moo tax ma ni la nag. li doon Pastef di éviter. si loolu la Pastef waroon éviter parce que ñoom seen stratégie loolu la bëgg nañ waa xam nañ ni c'est un homme boo boo xam aujourd'hui am na aura mais les gens de sàmm kàddu yi ils veulent coûte que coûte vaille que vaille être dans l'aura de Ousmane Sonko. est-ce que Pape Djibril hmm. xam nga nuñ koy waxee nii yow doo wax ko du dëgg. est que xam nga ni neexu ko. Hmm. mais mi ngi ciy persister xam nga day génn tey wax loo xam moom leer na ni lii du dëgg xam nga bi mu ci mujjee mooy bi mu taxawee. da koy def sciemment. stratégiquement laa la bëgg a waxal. xam nga lu tax man la stratégiquement. Hmm. parce que xam na ne bu defee loolu altine talaata ñu dagg ko sànni ko ñu dagg ko. mu viral mu viral te en politique nag il faut savoir être waxam naa la il faut savoir être. Hmm. maanaam communication boobu ñuy wax si yow. dafay baax tax day yokk sa existence. bugaan nag logique boobu la doon jël mais des fois day juum. Mhm. est-ce que yaa ngi mooy def loolu parce que bu bëgg a saboter. <laughs> tu as mais loolu lay bëgg a jël. moo ma ni la. Pape Djibril voc logique boobu lay jël. d'accord fii la toog ni Bakel président de la république ba mu demee foofu. wàccul sax nit ñi nit ñi nit ñi. ni mu leen kiimee noonu la newaat nangam ak nangam dem. Mm. moom xam na ni loolu du dëgg. parce que mais xam na ni bu ko waxee. dans les minutes qui suivent. dina dina viral. dina viral nit ñi nañ wax si moom. justement ñu ubbiwaat beneen euh, beneen chapitre suñu dernier point mooy lu soxal euh, le décès de Moustapha Ba finalement procureur joxe na ndigal. Euh, pour ñu mën a amal li nga xam moo di euh, ñu mën ko denc ci anam gi mu waree donc tey waroon a nekk li nga xam moo di levée euh, du bi ñu waroon ko amal bu 10 heures jotee fi nga xam te moo di hôpital militaire bu Wakam mais teewul ci communiquer bu ñu génnee lu jëm ci wàllum enquêtes yi ak investigation yi dafay continuer pour mën a leeral li nga xam te moo di circonstance yu Mouhamadou Moustapha Ba ñàkkee bakkanam ak lan moo ko war a faat donc loolee moom la ñu daal di xamle donc loolee waral famille am daal di woon annoncé bis ni ki tey ba 10 jotee lu jëm ci levée de corps bi foofee ca hôpital militaire bu Wakaam ñu war ko denc sa dëkkam di Nioro du Rip euh, foofee la war a dem dallu ji nekkee ci région bu Kaolack euh, bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko Abdou Nguer Kaaw Moustapha Ba évolution bu ci am ban euh, jàngat nga ciy def. waaw bala maa kii bi naa rebondir. da nga bëgg a rebondir fële allez-y am na lu fu mu wax ci Sonko programme Sonko hmm. amul programme wax ju neex la am. wax ju neex ak programme bokkul ay promesse ak programme bu benn day promesse day wax rek Sonko day résumé sax la mu doon diggee day koy résumé waat ñambaas ci tuuti tàngal ceeb am na nag benn arme bu koy défendre est-ce xam nga lu tax sunk xam na ni moom ñi koy défendre nii. Hmm. mënuñu mënuñu sat mënuñu ko satisfaire xam nga lu tax. mu tax daa bari dofa ki naafiq ñi koy défendre. Hmm. ñi koy attaqué nag. ñëpp a crédible te ku ci dóor mu dal parce que day dugg automatiquement ci bopp nit ñi ndax dañuy jël fee dañuy jël histoire indi booleeg li tiire. mais Nguer est-ce que wax Sonko amul programme c'est pas trop dire. bu ñu xoolee ni mu campagne gis nga fu mu dem pôle yi toog tas li mu war a def ak li mu bëgg a def. loolu aussi déggoo nee naa la. Sonko day def ay promesses. ah loolu dige la du programme du ko réaliser. ku la waxoon heure réew mi nii Sonko ni ñu toog dinañ toog di ko critiquer nii ci yaa fi waxoon lii doo ko gëm heure a yàkkamti rek à toute sincérité nag dañu surtout nag mbiru transhumance mbiru bonne gouvernance ñàkk farfarloo Sonko bu ñu demee ba nommé nit ndax compétence Samba Ndiaye mu toog di ci wax mais loolu c'est ridicule pour moom mais genre yi la jël ñu koy défendre su ma toogee lu ñu teg. man mi gën a ñàkk xam-xam ci ñi contre Sonko man man maa maa ci gën a ñàkk xam-xam man ci boppam maa leen di démonter pièce par pièce di leen teg ñuy wax ba pare man naa la lii nga wax du dëgg ndax lii lee nga waroon a wax indi lee lu tax waxoo lee nga toog dingaa ngaa nga ñeppi sàkkaa ñi ci des. léegi ci léegi nag problème boobu la am problème boobu la Sonko am problème boobu la am problème ku ko défendre te nekk nit te doo ko te te xam affaire yi fi nga koy. ngeer nga na loolu ngeer. que moo tax muy yow jaaxal la Sonko di génn di tontul boppam di tontul ay xurum xaq di tontul ay Seex Caam di wax ci ay condamnation Ameth Ndoye di wax ci pasti gi mais y a yooyu foo ko gis que ah, def na effet parce que c'est c'est la coalition yow convaincrewul kenn cest à li mu wax ne moom laay màcc convaincrewul kenn convaincrewul la yow convaincrewul kii ak ni mu doon sëqat sëqat loolu convaincrewul parce que xoolal yow mënoo bàyyi lu Sonko def. def na ko dama ko xam def na ko ba pare mais amu ci résultat bu positif. Ah, bi mu naan bi keroog bi mu naan oh, li sëqat sax ñëpp a ngi reetaan démb sax xoolal démb wax na lu garaaw mooy barki démb di wax ba mu yàgg mu ne non faaw ngeen déglu ma nag fekk xar yaari meem parce que duñ déglu Sonko man toog naa la fii ne la ñuy dégluwuñ Sonko jëmm ji rek leen intéressé comme Seexu Sérif ak alxuraanam ja ak vaay léegi maanaam Sonko dem na ma naan leen faaw ngeen di ma déglu nag c'est-à-dire que parce que. man nee naa ko ñii dégluwuñ la yow li ngay wax ñoom duggul seen boo xam nga lan maanaam peut dafa wax loo xamante ne dafa euh, euh, pop dafa yëngal public bi. ñu a déglu leen déedéet déedéet soo faaw ngeen déglu ma c'est-à-dire que moom moo la gën a xam ne ma dañ maa faa cest à ma sëqatee sëqat nañ su ma ma ëbbalee ëbbali nañ su sol su ma wéqee taal ba ñu su ma dawalee vélo ñu dawal vélo parce que loolu fans club la. mais aay wuñ ko ci politique. non fans club mooy def loolu fans club mooy def lu waa ji def mu def ko alors que nit kenn du ko toppee noonu xam nga nit noo koy toppee. Hmm. jikko ak jëf. mais boo ko dee topp lu mu def def na ak lu mu def bëgg naa c'est-à-dire que génn nga ci mbirum humanisme. est-ce que yaa ngi jël mala xaaral xaaral xaaral boobu loolu bu la dalee rek yow génn nga ci jikko maanaam yow moomatoo sa bopp àndatoog sa sago moomatoo sa bopp boo demee ba ne diw lu mu def neex na ma c'est-à-dire àndatoog sa sago tayatoo ko mbëggeel gi ëpp na ci yow ba te mbëggeel boppee dalay gaañ. dina dem ba mooy dafa def-def. dina la mën waaw def-def gi moom ñu nooy bopp yi nag ñu nooy bopp yi moom ko jàpp na. bu doon def-def la yow di nga rëcc Sonko. ak Abdou Nguer barki Serigne Saliou bu xëyoon ci man du fanaan bu xëyoon ci man pour defal mën naa koo barki Serigne Saliou bu xëyoon ci man bu doon def-def la waaw defuma la lii mm. du hasard. nit bu ne laa boo demee ba tëddee sama yaay bëgg naa kooku kooku loolu loolu doo tuddee. justement parce que foofu dama jàpp cofeel googu yàlla cofeel ñu mel ni yow ak ñi toog ci yi ñoo poussé booy yi ci extrémité boobu parce que yéen saa su nekk ay gaafu Ousmane Sonko rek ngeen di ngeen di wër di ko gis booy nag dem ba sës leen peut-être léegi loo wax si moom bëgg nañ. jàppee woo ko noonu non non jàppee ma ko noonu. d'accord. nit mënu laa poussé ba ngay def yéen parce que matoo kon am de nit warul la pousser pousser pousser pousser ba nga àgg fenn fi ci liw lu mu def bëgg daal. maanaam pour noppal leen loolu loolu sax loolu waru ci lee pousser sax. Hmm. parce que matadi la quand jël sa waajur bu jigéen naan même bu ko tëddee woon baax ba ngay lal deram di ci julli. am na ñu wax loolu nga. du jeex parce benn waay yoof mu ne man bu ma dee bugguma benn sëriñ yu jullee ma yoof barke yonent yàlla Muhammad loolu lu si ne. ah Sonko bu dee bu ko matee kay. waaw lu ci ne lu ci ne léegi déedéet dañ lay wax lu ci ne. non yow ma mën na laa jullee. waaw déedéet dañ lay laaj. waaw xaaral rek yow ma lan lan la ci ne. waaw bàyyi ma ma ñëw yow ma mën na laa jullee. Hmm, dama lay laaj. waaw xaaral man dinaa ci ñëw lan lan nañ ci loola. mën na laa jullee waaye man moom du ma jiite te jumaa jumaa. Mouhamed mii bu ko matee. mën naa jullee nit. waa bu ko matee waaw. imaam yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu tànn Sonko muy jullee néew bu may bu ma am baat man loolu de kon dëj ba rayante lay mujjee yow jàngal alxuraan damay laaj yow jàng nga alxuraan. jàng naa waaw mas fekk fu ñuy tànnee imaam. xëy na mosoo ko fekk. waaw fekkee mu ko. critères ya ñuy laaj ki sonk mënu koo doon xam naa ne gaayam yaa ngay daanati gàngiri dama ne. ma kon bind nañu. gàngiri maanaam ci la bokk dinaa ci ñëw. Sonko maandu dinaa ci ñëw waaye ma ñëw maandu. yaa ko wax de yow yaa ñu yab dinaa ci ñëw yow yaa ñu yab sax di wax loolu <laughs> gis naa keroog entre parenthèse ñu bindal koy kaamil jox koy kaamil yu bari ca Mbàkke ak ay xasida mhm. di ñu jéem a fooye ak aaya yu muy yëkkati ci mitin ah, xaaral di ñu jéem a yablu di ñu jéem a fooye di ñu wan ne waa ji daal xaafisul Quraan la kenn weddi bu ko waaye laa taqul yoo xam ne xale yu sax dañ koy fooye xanaa boobu naan na ko comme ndox